ci njëkk mooy sant yàlla di sant sunu bokk yi ñu àndaloon yépp doon jóg suba ak ngoon guddi ak bëccëg ba kër sëñ gi sotti ndax yàgg nañ cee dox yàgg cee wax wante bis bi sëñ Tuubaa Cheikh du Muntaxa ñëwale boppam ci la lépp sotti beneen bi ci des it mu gis ne sinu maam sëriñ Mbusoobe wares na ko wutal bërëb bu yaatu fii ci Mbàkke mu doonoon suñu yéene ñu ciy dox ba mu sotti ñu jël juróom-ñetti parcelle yoo xamante yu dëpp loola jagleel xam naa bala maa jóge fii da ngeen may boolek ñaar ñoo xam ñooy ànd dem njaareem toppatoo ji kayit yi ak plan yi ba mu génn ñu jébal ko sëñ bi te li ca doy waar ca gën caa xéwale ñetti bërëb yi dafa am lu doy ci am bu njëkk bi mooy kër Cheikh Amadou Bamba gi kenn umpale ne bërëm la bërëbam la woon jóge fa ma jàpp ni stade ba ñu fa defoon bu fa nekkuloon dañ ko loti sa joxe kon bu fa nekkee rek dafa mel ne loolu téye bërëb ba ba ki ko war a def yegg si def beneen bi ci toppit fi ñu jagle sëñ bu soobee xam naa bu sorewut ak fam nekkoon it bu dut foofu it sorewut ba am na lu fa ne benn bis la ci sama xel dem ma ñëw di ko saytu fekk dara néew te lotissé nañ ko mil depuis 1985 loolu it ñu ne kon nañ gaaw teg ci loxo jagleel ko bala caa keneen teg loxo wante it mu am beneen loo bu mu dendal bu kenn nekkul ñu nañ ko jagleel Mamoor Jaara borom Saam ñoom ñaar ñu dend loolu nag mooy li nga xamante mooy li war a ne ndax dëkk bii day dëkk Serigne Touba te bu ñu liggéeyee ba Touba ak Mbacké di yëkkateendoo di tegandoo ñu xam ne ñaari commune lañu wante benn communauté genn kilifa muy Xaadimu Rasuul lépp dana dox loolu nag moo moo jig dëkk bi kon ñu ngi ñaan seen borom mu dajale waat ñu fi ne gën a déwén te kenn ba ñu manqué ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërëjëf